nitu neen xol yu dara newu ci baat yi ma yëkkati nii fekk na ñu toog maag moom ak ay jawriñam lu ëpp une de temps dama ci mujj am kersa sax ndax dafa bari responsabilité dafa war a teel a xëy suba waaye mu jox ma temps am yëpp tey laa doog gëm nag baat bu tedd boobu nga xam ne suñu borom moo ko dénk bépp jullit mais balaa ngaa am àtte ci nit balaa ngaa am xalaat ci nit balaa nga am foo ko dëkkal na nga jëfee waa am ruhum suuraa bay naxum loolu la ñuy jëfee maak moom gindikunte nañ bu baax nag foofu laa mën a yem nag ndax am na yeneen i jataay yoo xam ne war nañ ko ak moom jataayu laayante biir ndax suñu borom a ko santaane ak diinu nasixa diine laayante biir la ak yeneen ak yeneen ak jataay ndax bu ñu fàtte ne ñun ak moom ñun waa Jamra ak moom ño ke suñu khadratul ahmadiyya mm-hmm. Mm-hmm. ñun wa jamra ak mom ño bok ben ciofel ci sanga bu di cheikh islam Baye fayma ñass yalla na yàlla yokk leeram kon nak euh, seigne cheikh sanga mm-hmm. euh jox ma loxo sukran lak <laughs> kon nak mbokki na seen xel dal dekk bi waxtan rek rek rek mo koy doxal du lenen du du werante du ŋaññante du jabalisante waaw ndax ñun ñep ay jaamu yàlla lañ te suñu borom bu demee ba ne ak diinu nasiha eh, day leen laayante biir c'est que moom mi ñuy bind am na yàqin bu wér ni matuñu comme que matuñu nag naka la ñuy mottalinte laayante biir rek sëñ bi yàlla yàlla na yàlla amin amin amin amin sa ci sànni ci ñaari baat rek salaatu wasalaam ala rasulillah aleyka salaam wa rahmatullah wa barakatuh ñu ngi nuyu mu islam bi yëpp di nuyu ahlu tariqa tijaaniyya di nuyu ahlu faydatu ibrahimiyya ñu baax eh, bi ma توغي في دي جامام باي مام مختار جاي خا خنني مام مو يور جامرا ا واما تليفون جاري كو جي سما بن نجابوت ني دا ما بوغ سيتسي تاي مانيكو بسم الله انكو اون فوا اهلا وسهلا مرحبا شو مرحبا لو لا غتونت ا فتبارك الله وصلى الله عليه وسلم مو جوغي كرم bàyyi ay soxla yu bari bàyyi ay yitte yu bare bare bari bari bari bare bare bare ah ñëw nag sama kër toog maa ngi moom ñuy posante ay question soo ba léegi nag sax di reetaan question bu ma laaj rek ma tontu ko ko ñuy waxtaan waaye ndeysaan mu nekk koo xam ne ku yaatu ku yaatu xol koo xam ne xol bu ubbeeku la am koo xam ne vraiment man maa ngi sant yàlla baax ci nekk l'islam am na ay ay ay min nii wala yi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla ñoom seen waxtaan tout le temps mu ngi nekk boo xam ne dafa am dafa dafa am fondement wax bu rafet bu taaru xolam ubbeeku na ci man may tamit wax dëgg yàlla dem nañ ma maam ma maam la ñu mel ne ñoo bokk ndeeg bàyyi far doon te xamantoo bu yàgg waaye nag euh, lu nekk rek dafa am foog yàlla jaarale xëy na fii la fii la ko yàlla jaarale woon suñu xamante ñu toog yàlla moo ko jàlle fii incha allah laa ndox ma sa dara moo ci am ñu ngi ñu ngi sant yàlla ba ñëpp nag wax yi bëri na nag waaye nag ci jàmm salaam mooy am incha allah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 nga xam ni ay waxam yëpp yaakaar naa ñëpp jot nañ ci du lenn lu dul def boppam yàlla ak di tuutil yàlla ak ñàkk respecté yàlla ak def yàlla morom yàlla nit la jaay la sant di wax boo xam ne waxu ko benn yoon waxu ko ñaari yoon waxu ko ñetti yoon da koo wax waxaat ko waxaat ko waxaat ko. yàlla mbind asamaan suuf. yàlla mbind asamaan suuf. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. billaahi lazi nu mu sant. ñu doon xaar nag ci. xëy na kii di maam Matar Gueye xaaruñu ci moom sax waaye xëy na yenn ci Sénégalais ñoo doon xaar ci moom waaye képp koo xam ni xam na maam Matar Gueye xam na ñuy doxale waa Jamra yow amoo lenn looy xaar ci ñoom bu diina leeral sa bopp tuuti amul lenn looy xaar ci Jamra ngir ñu koy défendre ci diina ndax Jamra seen bopp dañoo comprendreul diina mam Matar Gueye mii ci boppam dafa xamul luy diine comprendre luy diine ci ay mbiram rek lay dox benn mbir daal mooy mbir boo xam moom yam na ko lool muy góor jigéen parce que xëy na ci lay yegee boppam te ci loolu tamit lay amee sympathie sénégalais yi do góor jigéen lu ñu war a xeex la ci l'islam lu ñu war a dénoncer la loolu ñëpp ci ànd waaye moom seen xeex bi xeexub euh, xeexub naafiq la ñoom nu ñuy xeexee li nga xamante ni moom mooy wala nu ñuy sàmmee jikko yi dafa am yenn jikko yu ñu yëpp am yeneen jikko yu ñu yu ñu yoo xam dañ ko ragala laal lépp lu jëm ci sëriñ këru diine bu ñu fontoo yàlla ak yonentaam loolu moom ñoom sàmm jikko yi ñoom loolu duñ ci wax waaye lépp nag loo xam ne xam nañu buñ ko buñ ko laalee sénégalais yi bëri nañu ànd ak ñoom waaw loolu nag mën nañu génn takk rajo yi wax ci sang njaay mi bu dee Islam, la ñuy àtte yéefar la bu génn ci diinal islaam bu fekkee la muy wax ba mu koy wax màndiwul bu fekkee la muy wax ba mu koy wax màndiwul yéefar la loolu dafa amul kenn ku wute ci lool ku taxaw ne man maa yàlla ku taxaw ne yàlla nit la ku taxaw ne yàlla nit la te yéen ñëpp mokkal ngeen saar bi walam yakun lahu kufuwan ahad amul yàlla amul kenn ku muy ñuróol fala tadribu lillahi al bu leen jël yàlla di ko ñuróole ak kenn ku ñuróole yàlla ak mbindeef loolu kéefër la waaye yemu ci mu toog di bàkku mu jël santam moom jox ko yàlla na yàlla nit la njaay la sant na yàlla nit la te yàlla dàq ci moom ni moom du nit yàlla nu mu dàqee ci moom moom di nit bañ ko jiiñee ni dafa am doom lan la wax dafa ne bu fekkoon am naa doom de ah doom ji man lay jël comme de doom ji maag sama doom xëy nañu xëccoo ku nekk naan maa moom lii maa moom lay parce que doom day ñuru baay ba yàlla bëgg wax la won ni moom amul kenn ku ko ñuru moo tax mu ne Isaa danoon lekk ñam naka lay nekkee yàlla moo ko yaayam mu ne kaanaa yaakulaani taam comme yàlla bëgg la wax ni amul kenn ku mel ni moom ndax moom du lekk ñam te nit day lekk ñam nga taxaw nga ne nit kooku yàlla nit la te ñëpp xam nañ nit nit day am soxna di am doom nit day dem ginaaw kër nit day bàkkaar day def day def nga ne nit kooku moom mooy yàlla comme nee nga kuy bàkkaar mooy yàlla yàlla day def bàkkaar mama targué waron ñew tay wara génn def déclaration dénoncer li tuubloo ko waaye amul lu mu lenn lu muy def dem ci moom di xàkkataay di ree di naan noo déggante nañ lan nga déggante ak moom doo ko wax waxal lan nga waxtaan ak moom ak lan nga déggante ak moom ci lan ngeen déggoo lan la la wax te bu fekkoon si fekkoon si affaire góor jigéen da ngay génn wax takk rajo leeral lépp te kii góor jigéen moo ko gën ci diine lislaam ah góor jigéen boo xam ne julli la moo gën kii parce que bokkaale def sa bopp yàlla moo gën a bon góor jigéen moo ko gën a yées kii moo gën a yées góor jigéen bu fekkee góor jigéen bi dagananul góor jigéenam góor jigéen la rek wala mu jigéene nii wala def góor jigéen mais xam na ni la muy def baaxul bàkkaar la xam na ko xam na la muy def bàkkaar la baaxul waaye xëy na xam nañ dafa topp mbayu ba dugg ci góor jigéen boobu moo tane kii naan man maay yàlla bu doon islaam la dañ koy atte dañ koy yóbbu ca pencu ma tuubloo ko su bañee ñu rey ko waaye nga toog naan ñàkk noonu ñàkk déggoo la woon te yàggul dara ay nit bañ fi laalee ay sëriñ xaw ma danga jug def sa délégation ànd ak ñoom maa ngi maa ngi fàttaliku sax euh, ñoom xaw ma nu mu tuddati Euh, lan mbake borom sàmm noonu mag ñi xaw ma fàtte naa nu mu tuddati xaw ma AS yow ci nga nekkoon di leen jàppale a ah, da ngay xeexal képp kuy laal mag ñi waaye kuy laal yàlla yàlla moom kooku sa yoon new ci kooku mun nga toog moom reetaan ak moom quoi pourtant kuy ku ku laal sëriñ ku wax ni sëriñ bi fii daa juum wala sax am lu wax ci sëriñ te sëriñ nit la. yow da ngaa jug demoo sax waxtaan ak boobu da jug takk pot yi waaw loolu dañ koy lijjanti dinañ leen jëli dinañ leen kii fii nga bind nga lancé appel nga ne képp koo xam ne day digal sëriñ yi Jabro mu ngi def benn appel boo xam ne dañuy dem jëli la foo munti nekk ak nga def loolu yow Mame Matar Gueye nga publier ko sapage page jéemoo jéemoo waxtaan ak ñoom dax ah. lu tax waxtaan ak ñooñu jéemoo ko de lijjanti woo ko sax waaye kii ne man maay yàlla yàlla nit la te njaay la sant. nee nga da waxtaan ak moom moom da ngay waxtaan ak moom mais woni naafiq bi ngeen nekkee moo tax seen combat yi fenn la dul dem seen combat yi fenn la dul dem ay sàmm jikko ay nangama nangam du dem fenn parce que dafa am lu ngeen ñemee laal am loole ñemetul laal populisme daal ngeen ñame lépp loo xam ne populisme la voilà boo la xamee ni boo leen ci waxee ñu bari ci askan bi wala ci jëm bi mun na leen mun nañ leen jaajëfal loolu mun ngeen ci wax waaye loo xam ne xam ngeen ni boo leen ci waxee di ngeen am ab tarixa boo leen duut boo leen laal parce que xam nga ni li mu woote nii wax datul wujud la li mu woote nii jour boo ko màbbee di nga màbb di nga màbb ca kaw du ci moom rek ngay yem parce que boo toppee cher bi di nga gis moom ci ñamuy muy dellu wax nañ wax ju mel noonu ne man maay yàlla comme ni ko seen sëriñ bi waxee anal xaq waaw man maay yàlla comme gis ngeen ñii ñii dañuy dóor rek ay Mamata Gueye ak nangam nangam ñii ay gëmuñu dara bu dee islaam ci ñoom lay xaar ñu xam ne islaam tumuranke na taxul ñu benn lislaam dara ñoru leen du li nga xam ne moom mooy seen intérêt donc ak li nga xam ne buñ ci waxee dañ leen di gën a xam dañuy gën a am tur moo tax gisee góor jigéen parce xam nañu góor jigéen buñ ko waxee lool loolu moo def jamra jamra lu ko def mooy jóg xeex góor jigéen mais du jikko yi ñaata ay jikko jamra mu ngi nii waxu ci bal sax jabra day jël ñoo xam ne kenn xamul lu ñu doon ay fecckat ay comédien lay jël naan waaw léegi ñii ci jabra lañ ay ñoo xam ne kenn xamul lu ñu maanaam toog ñoo xam ne amul benn njëriñ bu ñu amal jikko du jikko du diine toog naan noonu ñii ci jabra lañ bokk comme kooku ban jikko lay ban ban jikko lay défendre ay comédien ay fecckat ay woykat ay ñoo xamante ne yu ñàkk fayda la ñuy wax ci internet bi jamra ñooñu lay jël adhéré leen né ñi ci wa jamra lañ bok ñi adhéré nañ ñooñu ban jëriñ lañ la ñuy defal jikko loolu ñu defal jikko ñu yaq jikko nga jër leen duggal leen ci jamra né da ngeen di defar jikko da ngeen di sàmm jikko yi ci ay chaahar ngeen nek sang jaan mi yeufër la ci wax ba mu wax genn na diina l'islam sang jaan leen la wara def moy mu tok de tuub na ma ngi tuub ma ngi jéggelu yàlla mu duggaat ci diina l'islam mais yi ngeen def ni yëpp ay tappale la wallahu alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad